mbokki Sénégal mbokki réew mi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 ñu ngi fii tey ci marché joor mbokk yi marché bi lieu bi dokk na foo xamante ni taarix ci làmb booy bëgg nañu làmb booy dañ koy dund waaye fi mu toll nii dañoo toll ci moment boo xamante ni vingt une ku nekk dafay ñibbi ñoom moo tax fi mu toll nii taluñu dara taluñu wax taluñu dara parce que vingt une heure xam naa ne dañuy ñibbi eh moo lay <laughs> daw Gaynde Njaay Gaynde maa lay siyaar Fall. maa lay delloo waxal a borom dëkk bi wax. ndeysaan dëkk bi esaan ay maa ngi yaa ngi yor lu ma lu ma min. Gaynde naka la. waxtu baa ñu lay siyaar baax a baax. yaa ngi am jàmm sant yàlla baax a baax. sant nii naa yaa ngi am jàmm baax. mais kóol fa laaw nii. yaa ngi siibir lamb. waaw lamb moom ay tuut tuut rek. Hmm. bëri waa bëri moom. am nga mbër. am na mbër way. kan mooy sa mbër. Bala. lan moo la neex ci nag. non si damaa neex xam nga ay bëreem xam nga ay ak ak ak ak ak kéem daal fii moo ma neex daal. Hmm. si. mais Marché Dior dégg naa bu lamb amee fi ñu toll nii

mais pas ku ma gis rek maa ñu mënoo ñu débat ci làmb parce que ñëpp yëpp ñu xool quoi am na da ngaa métti làmb am ñoo xam ne liñ jar na noonu te man nag ëgguma foofu noonu ma ne damay werante par soom nii rek ba jeexee rek jeex na si huis daam solo ci làmb si bu ñax bu ñax làmb sax tax ñoo ko fan si mën a kontaan quoi avant parce que ñëw na sa gërëm ba mu ñu xaar ko ci bi. mais hmm. dañoo bëgg ci xew mu yëngu mu loolu mu ñëwee stade ñun. Ah, si waaw noonu la fa demee yéen commerçant moom àndoo leen ci biir Couba. non ànd bëgg ñu bàyyi lamb na meloon na meloon muy dox muy gars yi gars yi yëngal ñun loolu lañ bëgg ñun. démb vingt et une heures fu mu la fekk. fii ci yoon bi ci yoon ci yoon bi ak ah, laaj ma lu ma neex laaj ma lu ci courte bi Macky ne ko nañu dimbali yàlla tax non sori couvre-feu bi ñun gars yi li ñu añ gars yi li ñu añee suba lañu la jëndi kon kooku nag soo bëggee xañ yi yéen heure yi da nga koy sonal na xool ñeen ñi amul doole nga xam ne lii lii lii lii am natt fi yàlla teg la moo ko fan jëlee bàyyi nañu dox seen activité am na saa war jeex la demee nag waaw àdduna noonu mi ngi noonu nag fa yàlla <laughs> kilifa gi maa lay nuyu di la siyaar a gis mbaay ah xamante nañ kay yàgg naa leen jaay mbuus de génn <laughs> naka la mbaa yaa ngi am jàmm Elhadj kaay kaay wax kaay ci lan nga nekk bas nii samay doomu ndey lañ fii yàgg naa fee jaay jiin de jiin yaa ngi noonu kaay nii kaay nii sëñ bas topp ma avancé maa ngi nii rang muy gaaw Elaj bas baax na ci loo nekk. maa sant yàlla bu wér am jàmm naam jaamu non man moom mbër xanaa Modou Lo rek mooy nekk sama mbër ay wàllum lamb moom des na nekk sama affaire quoi. Ah. di nga xaw a des fois combat Modou Lo yi a nekk. bu daanee ama seen bu njëkk bi. Hmm. waaw. mooy boobu. waaw Philippe ma ci gën a neex. Hmm. su ma ko xoolee rek sama xol day neex. Hmm. gis mosoo def lamb. xanaa mbapat àll rek. Hmm. ban dëkk. ay mudaay ay ay Ndofane Kër ma jëbel yooyu noonu. Ah, côté boobu lamb di dafa neex. waaw lamb dafa neex est-ce que lamb wii kuloo lamb boo xamante ne bu ñu ko tëggee stade kenn du dem euh, dina neex en tant que yow mi nga xam ne ci télé bi rek nga koy kàtt. non man woon lamb su ma amoon lu ma gën a dama koy seetaanee stade quoi mais dama ko ñemewul dem stade dama koy ragal damay tapet quoi. Hmm. doo ragal de. non. mais démb ci vingt une heure fu mu la fekk. non démb dama teel a wàcc c'est xam nga moo tax damay bañ police yi duma ma ko waa c'est que man tapet laa te man ñemuma ay liif suñ ma koy ay liif ñemuma ko quoi benn lañ ma ko mos door dóor te booba daara la woon ñu demoon benn affaire foofu noonu ba am lu xewoon ñu dem foofu noonu léegi après gars yi police yi dàqee ma daw mais waaje fu ma door liif bu ma dóoree liif sama bopp beeg sama yaram bi yëpp xaw ma fu ma nekk ay suuf yu bëri laa doon gis quoi moo tax instant yi daal buñ nekk kii rek damay ruux moom gaan dem moom tel na maa tëdd lii lan la yow looy jaay ni yére yére lan. yére jigéen waaw. lii lan la lii kii la xanaa. tubéy sa tubéy am dara la de. tubéy ñaar lay jaar. tubéy bii li yomb na de. waaw eh, tubéy 3000 kaay leen jël. amul bàyyi ci loo nekk. namm la tur bi nan la. El Hadj VIP. mais El Hadj yow moom VIP. waaw El Hadj VIP waaw. bi maa ngi nii de. yaa maa ngi si jàmm bu baax marché sant yàlla yaa am tawfeex ba. waaw sant yàlla wéer a wéer. waaw. Hmm, di nga torop bu baax. man. Balla Gaye 2. genn géejawaay. waaw waaw. a neex ci moom. ah gëm man li muy def ak gëm ko rek. Hmm. waaw. combat am yëpp nga seetaan yëpp la gën a neex ci combat Balla daan moo loo. waaw deuxième bi waaw. neex si combat hmm. na ko daan na ko li mu ko def. dama ko naw si ay jëfam ak si ay waxam. waaw mais lamb huis clos noo ko gisee. ah huis ci lamb. a ñuy xuloo si lamb dañoo xam huis maanaam ñu tëgg lamb tey ne dinañ ko yóbb stade arène nationale mais kenn du dugg kenn du seetaan. lool moom jarul ñuy tëgg lamb kon. Hmm. waaw waaw. man lamb du ma ko seetaan teel damay jàkkaarloo ci stade bi laay toog dagg bee dem toog seetaan waaw fekk loolu la ma jarul ñuy tëgg lamb ci stade bi rek waaw. démb 21h fu mu la fekk. 21h. fu ma fekk ah maa ngi samay business. waaw maa ngi si bi de. ban laa ñibbi. Ah. ay vingt une heure trente laa ñibbi. dañoo kenn. ah dañoo maa kenn jaay ba wàcc takk sama bagage dem ñibbi. yàlla bu la xiiru ma bi dal. ah non ñaanu ma ko de mais dëkk bi nag dafa dëgër. waaw ah, boo ñëw nii war a war a fay lu yaas daf lépp yaa ma gën a xam ñu xëy ne la bu la say bagage foo ak trois mille ñu bëgg la ko te joxuñ la ko. ah da ngay rek nañ ñu dimbale moo gën ñi def yenn yi. amateur de làmb yi président bàyyi leen xel ci làmb la ñu bokk waaye dégg nga li ñuy wax ku ci nekk ma ngay kaas ay droit ci dëkk bu dëgër. sa joor cëf <laughs> Isa Pouye ngi doon borom Barça Diop. commando eh, eh, eh, bu ngay laa <laughs> Isa ci loo nekk. sant yàlla bu baax alhamdulilah. mooy. kii mooy Issa Pouy borom marché Dior. Issa siyaar naa la. waaw jili maa ngi lay siyaar bu baax a baax. sant yàlla ba alhamdulilah. liggéey mu ngi taw fii. ci kawam takkale ndànk rek. yee alhamdulilah. sa waaye man eh, instant yi moom maa ngi si ginnaaw làmb daal làmb daal lay wax Issa Pouy. waaw non Issa sama idole la. yee. waaw dama ko bëgg sama doom day la en même yee. Euh, mais làmb actuellement boo koy seetaan nga ni ñëpp ñooy sa mbër euh, ñu ne dañuy tëgg làmb def ko huis clos Issa noo ko gisee. non loolu moom d'accord ma si quoi làmb du sport huis clos comprendre nga làmb dafa doon loo xamante ni pour tey day dindi stress yaa ngi comprendre ba tey boo demee stade di nga fàtte ay problèmes yu bëri yoo am. da ngay am sa mbër koñ bi am mbër xam nga ñiy jóg supporter yi dem dundal làmb loolu mooy dundal làmb mais làmb du sport boo xam ne sport bi ko xaw ma quoi xam nga te aussi làmb doon na loo xam ne jamono Sénégal ñoom sport national la amut sponsor boo xamante ni day jàppale làmb comme ça nu am bu fekkoon ne nu football amee doole làmb amee na ko doole konoon amul problème mais promoteur pour ñu fay mbër yi normal dañuy taxale ba jox leen avance avance bu mbër bi jeexee day dawaat di toppaat ndesitu xaalisam loolu dafa métti des fois mbër yi ngay gis ni ñuy topp ñu leen topp seen supporter ñooy sacrifier di génne seen xaalis di teg di leen jox. di leen dajaleel di pour jël ay car di dajale pour sol ti set xam nga loolu bu si état def ay véhicules lool mooy nañ tëj làmb rek gars yi seeti leneen. ah Issa maa ngi lay jaajëfal baax démb 21h fu mu la fekk. 21h sama néeg la ma fekk ma teg sama litre soow di naan. foofu la waaw 21h ma wax dëgg yàlla moom su ma su ma xasee moom. aw ma fenn fu may dem. Ah. waaw mais nag couvre-feu moom sax waaye. Ah. la Macky Sall delluwaat ginnaaw. xam ne carrément askan bi ñoo ko fi teg te askan bi tax mu doon star. kon alors que ñi nga xam ne bëgg-bëgg askan bi na xool bëgg-bëgg askan yërmande bi mais tey couvre-feu bi xam nga corona bi lu yàlla xam doy na mais ku war a dund si corona bi nga dund ku war a dee di nga dee. comprendre nga mais nañ jëm a oyofal mesure yi quoi. dëgg la jaajëf Issa Pouye. kilifa gi siyaar naa la. doole siyaar. maa yaayam bu wér. tribunal la. hélas Dubaay. hélas Dubaay. waaw. hélas da ngay seetaan làmb. làmb. waaw naa si seetaan tuuti nag mais moom nekk samay kii nag. doo amateuru làmb. ah. non naa si seetaan ay ñoom Modou Lo ay Balla Gaye yooyu daal naa koy seetaan waaw ah, yooyu daal ñoo si concerné sa mbër man Modou Lo mooy sama mbër ah, lan moo la gën a neex ci moom non dafa am jom ak fu mu jógee xam nga dafa mbappat ba yeg si fu mu toll nii am gëm-gëm si lu muy def moo ko may lu mu am tey di waaw loolu moo ma neex si moom parce que ba ma koy xam booba mu ngi foyee bëree quoi man 2002 ba léegi maa ngi parcelle ba ma koy xam booba mu ngi foyee bëree ba ni ko yàlla may du mu am tey waaw bon nag maa ngi koy dooloon njëkkal rek parce que gëm-gëm rek moo am solo daal gëm-gëm daal moo ko yeggale fu mu fu mu yegg nii waaw loolu laa xam si combat moom ak Ama Baldé pour ñu yóbbu ko arène nationale def ko huis clos ànd nga ci huis clos mooy lan maanaam kenn du dugg si ci stade bi ñoom ñaari mbër yi kese fay nekk ak ñi leen di tëggal ñu bàkku fecc bëre mais loolu loolu loolu neexalul làmb làmb lu ko neexal mooy mbooloo mi maanaam làmb ji instant yi affaire cosaan yi bëgg a si làmb yooyu mooy xormu làmb yooyu essai bu ñu ko dindee rek làmb xorom sam doon am dootu ko am yooyu yëpp dañ ko war a bàyyi ay mbëri nañ doon bàkkoo ay tuuru gàllaaj yeeg yooyu yëpp ah ak ñu doon ànd ak ñoom si biir kii yëpp dañ ko war a bàyyi loolu mooy xoromu làmb parce que damay déglu tout le temps may déglu gars yi di ay xibaar ay bëri naan ay làmb yi dañ koy tere lii dañuy tere lii mais li ñu bëgg a tere li ñu tere noonu yëpp bu ñu ko teree rek làmb dootu am xorom ba mu amoon waaw loolu laa ci gis quoi man si làmb waaw. démb 21h fu mu 21 sama gaale la ma fekk sama gaale la ma fekk. <laughs> mosoo bëgg problème. ah mais comme ñun amuñ doole kay dañ tëdd rek mais lu ñu am moom gënaluñu quoi naqaru xol rek waaw moo ñu moom la ñu am naqaru xol parce que ay jeunes lañ ñun ñun sax tout le temps suñu marché surtout suñu marché bi la gën a métti ñun marché Joor fii guddi mooy suñu liggéey instant ñi xañ na heure boobu noonu métti na si ñun métti na si ñun trop parce que Macky Sall man bu ma sañoon daal bi muy def yu bëri dana ko xool xoolaat ko. def xool lu arrangé population bi ñu doog di ko def waaw parce que moom la yàlla may pouvoir man mi euh, euh, Macky Sall si ñu ko fal si laa bokk parce que man Macky Sall dafa ma daan jaral lu ne daay campagne jamono Abdoulaye Wade ah si ñu doon dem fépp si mitin yeeg yëpp si laa doon def ndeg bëgg ndeg bëgg ko mais essence yi bëgg gu ma ko bëggoon maanaam yaakaar gi ma amoon moom essence yi nii moom waakaar gi dafa woneeku. population. voilà mbokk yi jërëjëf euh, gis ngeen ko yéen a ko gisandoo ginnaaw bi ñu jógee marché joor ñu ngi wàcc mbartalu ñëw ci géej gi bëgg fee fekk mbër yi nga xamante ne ay champion lañ jàpp nañu ci làmb ba tey euh, war nañ cee mën a gañe lépp lu ñu bëgg a gañe ci làmb waaye jamono ji mbokk yi bu ngeen xoolee tali bi gis yoon bi ni mu xatee vraiment nga xam ni 18 heures mooy waaja jot nii temps bi des na tuuti boo xamante ne diggante 18 heures ak 21 heures. Euh, décalage yu heure bi gis nga macha allah ni mu bare mais gis ngeen ñii ñëpp dañoo bëgg a ñibbi seeni kër ñii ñëpp bëgg nañ vingt une fekk leen seen kër ngir euh, ndigal bi nga xamante ni président de la république joxe na ko mu doon loo xamante ni tali bi xat na dëkk bi xat na oto yi bëgg nañoo ñibbi euh, vraiment ñoom ñëpp li ñuy ñoom ñëpp li tax ñuy daw rek bañ ñu xaawi seen sutura ay kilifa ñoo fi nekk. ay responsable ñoo fi nekk ay nit lañ yoo xamante ne vraiment daw nañ wuti moo xam am nañ moo xam amuñu waaye ñu ngi bëgg a ñibbiwaat seen kër ba ñu fay ñibbi nag bëgg nañ faa ñibbeek xel mu dal bëgg nañ faa ñibbeek xel mu xel mu sell mais mbokk yi gis ngeen tali bi voie bi Serigne Bass boo ko gisee xool voie bi ba voie bële nga xam ne macha allah yoon bi xat na loolu ñuy jugee dakaar tamit aussi noonu la demee ñuy jugee dakaar ñi nga xamante ni saa yu ñu xëyee dañuy dem ville liggéey ñoom it gis ngeen yoon bi noonu la mel ci ñoom ah président sa population bi na ñoo lay ñaan ginnaaw ñaan képp la ñu mën. ah nga jéem a xool rek noo woyofalee mbiri ba nit ñi daal mën a ñibbi seen kër vraiment métti na trop takk der yi dañoo pasteefu ñoom macha allah ay xale yu pasteefu lañ ñoom ñoom macha allah bu buñ dajeeg yow vingt vingt une heure moom di nga di nga rëcc loo doon doxee ci mbedd mi moom sama gars yi noonu la demee kon dañuy wàcc ci géej gi mbartalu xool gars yi xool mbër yi mais ay joueurs rek laa fi gis mbër yi fu ñu ne. mbër yi fan lañ dugg ci yàlla hey làmb namm naa làmb nag ba taxaw naan hey làmb ñaari mbër yaa ngi jàppante da ngay lewaatoo <laughs> ay corona yàlla ñu yàlla àtteeg moom corona bii yàlla ñu yàlla ateg moom sama gars yi siyaar naa leen de corona moom yàlla nañu yàlla àtteeg moom rek lii mu ñu def lii mu ñu defal kenn xamut lu mu doon rekk tiis njàqare sonn metti xaw ma mbëri fan laa leen di gis jee ci yàlla jamono bi daa metti sëñ Bas ay jamono fii bu naa amuloon foo sànni mbàtt mu takk day fees jël nga gis mbëru làmb yi gis champion yi wàcc ci géej gi nga yaakaar ne adduna bi yëpp ay mbër lañ waaye gis nga actuellement nii may wax yow ay xale nga fi gis ay ñoo xamante ne dañoo bëgg a maintenir seen état de forme moo waral ñuy entraîner di daw di ñàq pour am dara mais sportif cent pour cent ki tax ñu naan sportif muy yaakaar dundee ci esport bi moo xam muy joueur yaakaar ni ëllëg war naa mën a signer moo xam muy mbëru làmb yaakaar ni ëllëg war nañ koo mën a indi arène nationale ñoom ñëpp gis nga gisuñu leen fi kon tey mu mel ni jàngoro bi lëmbe na àdduna waaye tamit couvre-feu bi mbokk yi boo koy metti na man démb couvre-feu bi suñu waa kër moom ñaanal nañ ma nee nañ ma ah, vi de famille bi ñu am démb bu suñu ko am ji li mu toog seen kër ba une heure du matin ba keroog may tëdd moom macha allah président gàcce ngaalaama président man maa lay ñaanal gudd fan ak wér mais président xoolaatal bu baax affaire yi métti na de te ñemewu ñoo wax président mënu ñoo wax mbokk yi c'est la première fois mbokk internet saare làmb yónni ma ma dem ci tefesu géej gi di leen defal micro trottoir bëgg xool yan mbër ak yan mbër ñoo ñëw ci ci géej gi di entraîner ñan ñoo yaakaar ni làmb ji bu ubbee dinañ bëre mbokk yi gisuma kenn du benn champion boo xam ne gis naa leen ci tefesu géej gi ñuy entraîner wala ñuy daw ay joueurs laa fi gis ay nit ñoo xamante ni dañuy maintenir seen forme ñoom laa fi gis gisuma fi benn athlète boo xamante ne vraiment ñëw na rawatina ñi nekk ci làmb xaw ma nag ba xam xale yi dañoo perte espoir xaw ma ba xam xale yi seen yaakaar dafa tas dama xamul ba xam xale yi ah vingt heures bi wala vingt une heure bi amuñu ci yaakaar Bébé Bismi eh Bébé Bismi kaay sëñ Bas <laughs> kaay kaay eh, gis naa benn mbër gisuma mbër dajew maag benn mbër dajew maag benn mbër te yow mii li ma la gisee daa mel ni pare woo pour sax entraîné la. Ah, dañoo entraîné ba tas bay bëgg a dee kenn xamul lu affaire yu demee. dee ku nekk di kaasal sa bopp ngir sa poosu bopp loolu day tar après benn instant ñun ñoom xam rek ñu toog jàpp suñu ñaambur nekk sunu bopp tamit xam rek la suñuy code ak suñuy business ba def sonal kenn waaw. jàpp nañ ni yéen mbëri ndaw yi yéen a gën a impacté ci yëf yi waa ñun moom ñoo gën a kii si affaire bi mais xam rek man li may wax mbëri ndaw moom mu si mu si nekk si mu si lu nekk si yow mooy lan bul xaar kenn si dara xam nga yow fexeel ba benn bu méttee mu ñaax métti même doonte da nga koy yëg sax ah doonte da nga koy yëg sax mooy loolu xamal sa bopp daal xamal sa bopp waaw mm-hmm. waaw xamal sa bopp waaw heure bi waroon naa fekk yaag sa papa booy laale ba pare Serigne Ndeye Gueye waaw ça war na fekk ñu laale ba pare bokku ne dox doxam mooy loolu bokku ne nekkaat si bay seet leneen man moom dama entraîné bay bëgg dama entraîné entraîné ba xamatuma lu may def benn instant xam ma wàññi rythme bi léegi matin bi rek bi après dem li jën sa bopp xam nga moo gën quoi benn instant. démb mu <laughs> biir kër nag daal moom fekk ma tëdd mais mi dul affaire bi sax dafa ma kaaw teel tëdd mais bu ñu fa daan bu daan woon fekk suñu côté man sama gars ñoo dañuy nekk benn gaal ñun ñëpp ñu toogandof di waxtaan xam nga nekk suñuy bagage quoi. noo gisee réew mi actuellement ak feebar bi ak couvre-feu bi ñu dellu si waat yu mel noonu noo ko gisee. ah man de li may wax mooy lenn Macky Sall dafa war a dawal yërmande quoi. parce que xam na lu ñu xamante ni guddi gi lan mën a defar seen liggéey pour mën a xam pour mën a yóbbul bëccëg gi seen njaboot pour ñu lekk boo xoolee am na ñoo xam ne reer dañuy jaay ñi di jaay fonde ñi di jaay leneen ak leneen xam nga mm-hmm. ñooñu ñëpp ñooñu suñuy yaay boole ñi suñuy mag lan xam nga ku si nekk daal xam nga rek am na côté boo xamante dina ko si a fàtte quoi te benn instant loolu du ñëpp la seen loxo jot seen seen seen ginnaaw comme maa ngi wax te àddina bul xool sa bopp rek da ngay xool ak doomu aadama ak ñeneen ak xamante ne billaahi wallaahi taala la xamante ne a sóoraale loolu war a sóoraale jeunes yi bu ñu xoolee ñoom état bi ñoom ñoom seen bamba maase na neex na ma pare quoi mais na sóoraale ñi si xam nga àdduna moom boo si nekkee da ngay suuraal bu xool sa bopp rek bu dee nit ku nekk bu doo xool si boppam rek kon jaratul kenn xam nga mën nga am gëm-gëm waan mën mais euh, bi nga dëkk bari na ci xale yoo xamante ni ñu ngi waaj di mbëkk pour dugg dem ci géej géej yu mel noonu loolu ban ban ban taxawaay nga ciy wax ak moment bi fi réew mi tollaat nii nii nii waaw waaw waaw waaw fi may wax fi fi ma wax fi réew mi fi réew mi mooy lan xam nga ak xale ak ak bi nii xam nga lii boo gisee li ngay gën mooy lii muy def rek xam nga nit ki moom benn instant da ngay dawal yërmande xam ne jeunesse bi benn instant ñoom ku nekk ak fi mu nekk acte mu nekk dafa am la xamante ni si loolu lay mën a jëriñoo pour si njabootam mais loolu boo ko fa te tegoo fa dara tamit moog zéro ñooy am xam nga benn instant boo nee kenn du bëre ah kenn du bëre ba pare ñoom tamit lu téye ñoom day metti boo nee kenn du xëy liggéey te joxoo leen ñoom tamit lu téye day metti xam nga côté bu si nekk xam nga mooy loolu ñun moom ñu ngi sant yàlla bu baax mais xam nga tamit mais dafa jar ñuy sóoraale ñeneen ñu quoi tamit ak lu mënti doon dañuy sóoraale ñeneen ñu xam nga nit ko du sa bopp yow kase du yow sa bopp xam nga parce que ñun xaar ñu si làmb kase waaw xaar ñu si làmb kase ñu ngi si leneen ak leneen mais dafa am ña xamante ni tamit suñuy frère la ñuy suñuy mag ñëpp a jekk ñun jekku ñun mais xam nga dafa laaj àdduna la xamante ni bu dul yow sax da nga war a sóoraale ñeneen ñi barki alxuraanu karim du ñëpp ñoo mën a mat liitar waaye walaat mun ta ñàkk. voilà noonu la fa demee nag te du ñëpp mën a génn taxaw wax. du ñëpp mën a génn taxaw wax xam nga xam nga lii du lu programme dag ma fekk fii fekk ma fi maag sama gars yi ma ñëw seetal sama waa koñ petit camp ñoo ma taxoon ñan ñooy yaakaar ba léegi mais gisuma kenn dëgg la dëgg la moo mooy li ko waral nag mooy xam nga ñoom ñëpp xam nga seen yaakaar dafa tas te affaire tamit li may wax rek mbër affaire de noble la xaalis tamit xamoon bu ñu tax a def yenn ay nan xam fexe ku si nekk na nga am sa ngor jaay bu tabañ a jaay sa dignité te xam yaay kan xam nga nit ki moom lii nii day jeex benn temps la day jeex nga mais nit am sa bopp am sa xam yaay kan xam sa am sa dignité quoi bu la ko dara jaral parce que àdduna bi fii dafa jeex ba pare lépp dafa war a nice xam nga dañ ñu jàppale ngir yàlla rek ñun nañu tijjil làmb ñu jaayante ku mën sa morom duma. wii kolo di nga ko bëree yàgg Papa Boy Djiné bu bëggee sax seen biir néeg damay ñëw bëre si man amul oh, problème. néegam doo fa bëree ndax ndey gay nga fa. moom man célibataire mais waa ndey gay moom sama sama fanse la moom da moom xam nga moom xam nga mu am benn waaw man lay supporter waaw. donte papa donte papa ji ne mooy mooy mooy jëkkëram ñooy bëre mais gën a jege a yey baayam laa teg si teg si xam nga mooy lesaa kon man lay faral beneen sax <laughs> papa boo ji ne dégg naa ko nag muy wax ah. waaye man wul ma koy wax bariwul nee naa man ah. waxuma yóbbante maa ngi toog sama rox xaw ma sax lu xew maa ngi toog sama rox di xaar maa ngi ñu war a jëflante nee na mm-hmm. moo ma ëpp doole mm-hmm. moo ma dàq bëre mm-hmm. moo ma ëpp gàllaaj xaalis loolu la waxtu waaye ku xool maa ngi moom su benn côté yow maa ngi moom yama naa man parce que am na jabar aw a jabar loolu dama ko koy ñaa dama ko koy koy wax la tax benn côté tamit nangu naa mën na bëre champion la ndaanaan la waaye buñ jëflantee maa ngi moom dina yaakaar ni musul mën dara. ñu bari nee nañ Papa Boy Djiné moo la ëpp volume est-ce nekkul moo la la ëppee masse musculaire est-ce que du moo doole. moo ëpp ma taxul nga ëpp ma ma masse nga ëpp doole déedéet déedéet ma masse nga ëpp ma doole man tolloo la doole. mënuma ëpp doole. mais mais ñu bari nee nañ moo la dàq xeex de gis nga ni muy xeexee. waaw moom moo dàq xeex bu ñeme taxaw xeex ak bu jour ba naka fekk mu tal ka bu jaaxal na fekk mu tal xeex. du tal xeex. xam nga koy jaax xam nga daa am ña xam da ngay jaaxal ñoom tal xeex man ku man xeex bu loo mën xeex moom mosoo gis mbër waxal duma la ma si làmba ji ñaata combat la am am mbër bu ma duma te mbër yi ma dee def danaan xeex la mais bu jaaxaloo ak seen xel ak seen xalaat def seen loxo ñemewul jug ñu ngi xool fa laa leen fa laa jaar pour ñu fàtte ko mu ngi bëre ci làmb simple yi mu ngi def ay jéego yu am solo vraiment euh, te compétition bi macha allah gis nañ ko dafa mel ni papa dafa la jàpp ni yow moom bébé bis mi da ngay ñëw rek jéggi jàll waaw pas boo jëlee boo gisee mu dem di mbappati yëpp yëpp man loolu dama koy xasee nangul ku war a dentee champion mel ni Bébé Bismi jar na nga dem mbappati yokkaat sa man biir na man su ma ñëwaatoon simple lamb lamb simple su simple su combat dóor du ma ko ma sax seen morom si benn côté bëri simple Bébé Bismi nooy neex la nga bëgg a wax ni yow yaa leen dàq bëri. loolu si yow laa ko déggee de. dégg nga waaye ah, kat dégg ñu moom maa daal. mais tey bu yàlla demee ba nga toll fenn benn instant ba fi nga waroon jàllee yàlla téel foofu da ngay xam ni yoonu ndaw du gaaw. Mm-hmm. boobu nag da xam sa bopp fa nga war a gën a mën a gëmaatee sa bopp wala gëm ni jafe-jafe yi da mu siy te tekk ba doole si di sant yàlla quoi dama koy sante yàlla xam ne jafe même lu mu métti métti su ma peetee sama prochain combat la ma koy rayante tegaat ko si. ñaata defet nga jógee. isaan yi benn defet laa jógee. mooy sa diggante ak Ada Fass. yee fa laa jógee waaw. keroog sa diggante ak Ada gis nañ la ca xew. sa diggante ak Papa Boy Djiné est-ce que Bébé Bismi combat boobu ñëpp nee nañ sa yàgg Bébé yàgg Ada Fass dafa yomb. xàmmee wuñu bébé bismi est-ce que bébé bismi mu ngi entraîné ñu bari ci experts yi nee bébé bismi dafa war yokk état de forme est loolu yaa ci bàyyi xel. waaw man man moom kaa ma woon le poids tawuma man sax bu làmb boo gisee ren poids ma yor macha allah ñëpp dañ koy coow poids ma yor fay dama ko mujj a wàññi dama toog récupérer wàññi bu baax ba poids bi dem. Mm. parce que dama yaakaar dañuy bëre bëreewuñu mais ma poids boo ji ne incha allahu rabbi buñ sampee affaire yi boo simmee ko moom dina ni bébé bismi fu wax ko mu ngi lay seetaan loolu jaruñu xeex moom xam na loolu xam na loolu. ngeen bëgg ngeen xeex ñaar yëpp lu si bëgg mu fekk lu mu bëgg ma fekk si te xam naa sax du am ay fekk seeg yooyu prib dib lay doon. prib dib waay nam naa làmb waay. laay laa oh. ah booloo booloo. nam naa lamb oh. ndeysaan. ay làmb ngi noonu waay. Eh, ana booloo. ana booy loo samay poulain la <laughs> bi léegi daa ay poulain waaw ndeysaan cey làmb kii de xàmmee naa ko maa ngi laa siyaar de siyaar bu wér naka ma dama doon fubal waaw dañ doon tàngoolu xam nga rek yaa non dañuy buñ paree dem chargé hmm. waaw defar koofur bi yaa gën a xam ah làmb bi kay ñoo si yam waaw ah, ku xool xam ne saa yi laamu dafa gasax billaahi wóor na yàlla. booy loola bu Cambérène. waaw waaw. Euh, ban écurie lañ ne. waaw waaw. mos ngaa dugg arène. waaw waaw. ñaari ñetti combat. ñaari victoire benn défaite. kan man maa dawal Dolph uh-huh. waaw. ak kii waay nu booy kii euh, vol booy bi nu mu booy jaamu gën bi. bi ma mujjee bëreel Sam moo ko tëggoon ko mbaa damay fàtte turam sax ban kii ma daan booy bi ma daan na la tuddati sax. val booy bi ma daan nu mu daan xamoo turam ñaar nga ñett nga yow ñett nga bëreel daan ñaar ji. kenn gi daal la nga xam kenn gi xamoo ñaar ji. <laughs> xam nga toog lu yàgg bëréwoo mooy waral lool ah? suñu combat ba léegi muy def un an six mois bëréwuñ barke alxuraan karim instant yii autorité war nañ jàpp si làmb ji quoi mu billaahi gars yi sonn nañ man je parle au nom des jeunes lutteurs quoi mbëri surtout mbëri ndaw yi xam nga tey jii bu dee VIP yi ñoom oh, mën nañ wax yëguñu ko quoi mais xam nga bëri ndaw yi dégguñ dara amaguñ dara billaahi métti na trop te la plupart ñu si ñu si bëri jàpp ñu si lenn mbër mi lañ yaakaar noonu la demee nag. jëm 21h fu mu la fekk. 21 <laughs> da ngay daloo. <laughs> waaw bañ a daloo. doo génn bokk ci gars yi kii tëmbal xeer rek ruube. non loolu loolu moom xam nga comme comme njiitu réew mi décrété na rek. nañ ko àndandoo respecté ko quoi. après xam nga. comme que ñun suñu suñu laamañ lañ yor. nañ wax gars yi dégg. mbër jàmm rek la xam. barke alxuraan rek. nañ wax nañ wax fi ñu war a waxee waa loolu la waa ñu dégguñu. yow siyaar naa la. waaw delloo siyaar baa yaayam jaam. waaw sant kay. dëkk bi waaw rek kër rek Valdo bu Cameroun. Valdo waaw. Valdo bu ndaw. <laughs> Valdo bu def sa bopp champion. bu ndaw ndaw rek bu ndaw. ñaata combat nga bëre. man Ogis Ogis bu Géejawaay. Ah, ak kii Zenga. waaw non sama premier combat dañ ma daan nag man ak Auguste deuxième combat laa daan Zenga le cinq janvier ba bii passé la waaw hmm. waaw cinq janvier bii passé la waaw dama ñëw sànq dugg ci géej gi di xool mbër yi nga xamante ni euh, ñu ngi entraîné ñu ngi yaakaar ci làmb ba tey ak fi jafe-jafe yi làmb nekk jafe-jafe bi réew mi toll mais gisuma benn mbër yow sànq laa lay doog gis nga ñëw euh, lan moo a loolu mbër yi mel ni lu découragé ci làmb gisatuma leen ci géej gi lan la. xam nga rek nga nekk xale moom yaakaar ci dara te li nga yaakaar yow nga gis ne doxul avancé wul ci dara it day xaw a doy waar bu fekkee yow li nga nekk àndoo cee gëm-gëm dëgg dëgg dëgg da ngay xaw a bàyyeeku même boo ci àndee gëm-gëm sax am na nu muy demee di nga xaw a lese tuuti waaw mais ñun nag boobu ba tey ñu ngi fi buñ fubalul ñu ngi dem man dama wàccoon pour dem dawi waaw su ma demul saal maa ngi géej parce que maanaam ay tolof tolof ak ay yiri dugaluma si làmb làmb option moomu ci dugal dama ko bëgg te yàlla tax waaw kon mu ñu bëre ñu ñàkk a bëre dañuy nekk ci ñu nekk waaw ñun ci loolu moo ñu dugal ci làmb daal waaw. yaa ngi waaw maa ngi sant bu baax a baax kay. waaw baax na mbër. ñu ngi sant bu baax a baax. waaw kontaan nañ nag ci affaire bi xam nga di wax it nañ ñu dimbali it dimbali mbëru ndaw yi parce que sonn nañ ay nit ñoo ñuy jàppale te ñi ñuy jàppale mën naa ne am nañ doole amuñ doole suñuy morom ñoo ñuy jàppale parce que xam nga mbër mu ndaw moom maanaam doo ñëw rek ñu gëm la waaw say moroom ñoo ci nekk di kañ kañal di si jàpp mm-hmm. yaa ma gën a xam maanaam nañu jàppale ubbul ñu suñu làmb ñun ñun maanaam ñun nekkuñu fi naan na gouvernement bi nañu jox xaalis wala nañu jox li wala nañu jox le parce que man mi di wax dama am métier suñu atelier bu jàng su ma su menuisier bois doxul damay dem ma liggéey arbi ñoom sama gars yi may àndal arbi ñoom la liggéey parce que ñaari métier benn la boo liggéey rek waaw ay affaire yu ndaw la te lépp bañ a toog bi moo ma ci dugal waaw kon bu ñu yaakaaree si dara it nañu dimbali te yàlla taxit xam nga di sandaale ñi jàppale bu baax a baax a baax a baax ñu ngi sant di sant waa Cambérène yëpp waaw di rafetlu sa liggéey nag waaw di rafetlu sa liggéey bu baax a baax a baax ñu ngi lay ñaanal jàmm ju bëree bëri yow Ba Dieng nit ku baax nga ñu ngi suivre lépp yàlla na suñu borom taxawu waaw ba li nga ci bëgg it suñu borom jàppale la si bu baax a baax a baax barki sëñ Saalum mi nga yaakaar nag waaw. jaajëf jaajëf Mbari kontaan naa kontaan naa gaynde wuy sama mbay wuy. Eh, Mbër kontaan naa mbër mi laal na ma ndeysaan nee na ma taalibi Serigne Saliou bi balaay sa bëri sëñ Mbackeeg Baaram mbokk yi kon noonu laa leen di tàggoo di leen jaajëfal bu baax a baax a baax ndeke man yéen rek laa bëgg yéen ñi may seetaan mais ndeke yéen man rek ngeen bëgg moo waral tey gis ngeen bi ma naree ñëw nan leen a yóbbul loxoy leen yàlla suñ borom di ko seetaan moo tax it naa leen bébé bis mi ndeysaan indil naa leen Valdo indil naa leen yeneen xale yoo xamante ni ñu ngi noonu mbokk yi kon di leen jaajëfal bu baax a baax di leen tàggu ci tàggoo bi nga xamante ne moo du tàqalikoo ba ëllëg incha allah ci beneen xew-xewu làmb fépp laa koy lijjantee fépp fépp fépp. mbokki Sénégal mbokki réew mi